ndax taxawaay boo xamante ni nii xamugoo looy xaar xamoo yàlla nam mu ci yow boole ko day wàcce jant bi ba nga jàpp ni boo tàllu leen sa loxo jot ko ñun nga ci gis doomu aadama yoo xam ne seeni yuur dafay xet mel ni cin lu baax ni muy wañaxee seeni yuur di ko nga xamante ni ni amatuñu menn pexe bu dul nag ñaan yàlla rek ñu yóbbu leen sawar ndax ñu noppi ndax dañu jàpp nii kii daal loolu la nam mu ci ñoom te booba nag la sëñ bi wax ni ca la ñuy seeti ñiñ yaakaar ne suñ demee danañ leen mën a defal intervention te ay yonent la tudd yonent yooyu ñu daw jëm ci ñoom koo ci jëm ci moom naa la taluma la saa bopp laa tal sëñ bi am na fuñ ci mbindam ni yaji u yawma alqiyamati wal anbiyau lahu wal kullu qad waqima yaqulu kulluhumu nafsi dañ dem na ibrahima dañ dem ci isa da ñoo ñëpp kenn ku ci nekk da am foo jaar ak sa borom foo xamanteni ni da ngay jàpp ni soo ko jegee dana ko fàttali yonte yàlla ibrahima aw nitam dañ doon jaamu ay xërëm mu bàyyi ba nit ña dem tool mu gannaawu leen xërëm yépp mu màbb ko simiñ wam ko doon màbbee mu jël xërëm ba ci gën a mag wekkal ko simiñ bañ jógee ca tool yenn ya suñu xërëm yi ku ko doon màbb ñu ne déggoon nañ ngóor su ko doon tudd di suñu wax Ibrahima ñu ñëw ci Ibrahima ni ko suñ xewee yaa ko màbb mu ne laaj leen bu mag bi moo ko moo leen màbb wax jooju ñi mu wax te du dëgg la loolu lay bañ suñ borom fàttali te loolu yàlla tax mu def ndax daa bëggoon a delloo si ñeen ni leen li ngeen di jàmm duñu wax mënaluñ leen dara waaw yonentu yàlla Isa tuumaal bi ko aw nitam tuumaal ni doomi yàlla loolu lay bañ suñu borom fàttali ko te ko fàttali ko du baax fàttiwu ko sax ndax yàlla du koy fàtte waaye nee na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy fekk ca biir parisol ba mu nekk muy liwaul hamd mais buñ ko waxee ni ko kaay wax ci sa borom mu wax ci jaam su jógee lam xamoon rek ca lay dellu muy jaamu yàlla bëgg a julli su borom ni ko tey julli amul waxal loo bëgg nu def nee na moom rek moo koy wax ni borom yërëmal sama yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna la ya, wax suñ wa ahmaduna yaqulu ummati irham khairan man rahima mo ni sun sun sun sunu yonent bi de mom lamuy wax moy sun borom mo sama xeet bu baba nak la sun borom di toor jublu ci biir bindé lamuy jëk jëkk moy bayyi may ci yam na fu ko net ni xar mi bejjel béjjën dañoon xar mi amuti bejjel sun borom dana saxal xar mi amuti bejjel ni ko fayo bam fayu ba pare nga xamni kento ñu tooñut morom borom jëlé leen ñu def suuf ci ak maanoom moo tax boobaa doomu aadama jàkkarloo la ni yaa layta nii kuntu turaaba ak a neexoon tey ma doon suuf ndax li muy gis moom xamu ko te xamut fan la fi jëm boo defee nag foofee téere yi jëf yi nga xamante ni kenn ku ci nekk am nga ko téere yi la ñuy séddale téere yi mën nga koo jote sa wetu ngi joor alhamdulilahi rabbil alamin boko ko sa càmmoñ wala ayaasu billah boko ko ci gannaaw yi da nga ñu wuy sama ndey téere yoy bu ko séddalee la na suñ borom di wax mooy iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawm hasiba jàngal sa téré bi tay man nga la sa bok ndax li ci téré bi ya ko def te ñi ko doon bind wuute wuñ kiraaman kaatibiina yaalamuuna ma tafaalu loolu rek waral na tax doom aadama ni cocc rek la bokk ndax bokk yi fi mu ku ci dugg ci ad néeg ñun la daam am caméra de surveillance bo duggé ci néeg bi yaay gëna yaru yépp xoole bu yaru ngay xoole doo laal luñ la lallu do wax lo xamul ndax caméra bi kat bo la filmé sa morom la lay jox te sa morom momi man na la yedd wala mu yedd waaw kay yalla bo la lan ño xamni buñ la filmé sa borom lañ lay jox nga ni garawul nga xamul dara mo xamone nga moytu مضمون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها téere boo xam ne du bàyyi benn détail loolee buñ ca paree da suñ borom da koy day fay mu doon ay jëf ñu jóoral la ko suñ tubaab nee na ëllëg jamal xiyam dana gis soo xam ne lañ koy jóoral ci aw yiw buñ ko engrais dana laal asamaan si buñ ko doon xayma naan suuf lañ ko jóg mën naa laal asamaan ndax bari waay waaye nee na dana ko fayee bor ba bu doon engrais gerte danañ ko lay jël ba fa mu newoon te tax ay borom mar loolu la ñuy wax mu fàllas mooy ku perte mooy mën naa julli mën naa woor mën naa jàng alxuraan mën naa natt asaka waaye lam mi ñoom ñu mucc lu ko neex yàq ko nit ñi jëw fen rambaj yàq darab ba yàq diggante ñaar ñuy ànd wax lu dul dëgg te jubluwoo ci dara lu dul yàq rek yooyu ku doon garaw da nga am pour fañ koy liggéente waaye lu doy waar la teñ wayefal ko lool foofa lay xew ñu peese ko ba xam li nga am ba ñu xasee ni ay balance fay am rek boobu la doomu adama waroon a góorgóorlu baykat moom lu mu góoroo woon dul am tonnage du ndax du am dara moo tax ginnaaw suñu borom nee na danaa peese war ngaa góorgóorlu ba sa poids ndax moo la fay musal ndax suñu borom nee na ku sa balance diis am nga xéewal waaye bu bu sa dara néewul musiba dal na la moo taxoon sëñ Tuubaa waxoon sëñ Masamba Diop Samb ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu leen lakk seen dàgg bu leen ko waleer sëñ Masamba Diop Samb ni ko luy lakk sa dàgg mu ne ko lakk sa dàgg de mooy jëw ab yéefar jëw ab yéefar ku gëmul yàlla nga di ko jëw nee saa yoo ko defee jël nañ lu bonam jox la ndax mu amul lu baax lu bonam lañuy jël jox la mu ni ko wala yaan sa dàggal mu ne ko moy jëw ab julit sa yoy jëwé ab julit jëm nañ sa lu baax jox sen na tambu sàmm jóg ne ko non na jëw non la tare sen bi ne ko jakar lo ba sa jakar lo ba la nga xam ne jëw ba da gis ni nak bo dé ñu peesee ba xam li nga ca lañuy fayé fay àq ñi nga bor ñepp dañuy jox taxaw suñ borom kii ameloon na ma nangam lebaloon naa ko fa damaa jëwoon te jéggalum daa yàqoon sama ber nangam ñuy cob jox soo demee ba jeexal ñooñu yi nga amee li àq te amoon na luñ fay seen lu la ñuy jël jox na benn waaye bu xorom boo xam su ma ko mënta ñàkk def sama ndey saa bàyyi laa koy def ndax sama yiw moom ñoom dong laa ko yéene moo tax doomu aadama war a wattandiku baax a baax foofee la alxuraan di waxe ne yow ma yafirul mar'u min axiihi nit ak ni mu bëgg mbokk fi mbokk toll ci moom boo gisee mbokk di ko daw mooy daa am àq yu dox seen diggante yoo xam ne faw nga fay ko te jéggalu la moo tax luñ mën a góorgóorlu ci rafetal ci mbokk yi ci dimbali leen ak taxawu leen man ko def ndax loolu rek ngay def wa ummihi wa abihi wa saahibati wa banni nit gis baayam wala baayam seen ko ci biir jataay bi wan gannaaw ndax foofa ak askanalante dafa amul yow ma isin laa ansaaba aw askan ak amal tutu fa léegi li ñu fay mooy ay àq yu doxoon suñu diggante la ñuy lijjanti waaye ay askan amatu ko moo tax suñu borom doxale ko xam ne nee na nit man naa àgg ci ñaan suñu borom ne ko léegi dama bëggoon samay soxna ak samay doom yëpp nga boole leen yóbbu sawara te man mu mucc yooyu yépp ay tiitaange la yoo xamante ni ma ngi koy am ngir bañ ñu àgg foofa nag moo taxoon Sëñ Tuubaa wan yoon wi ñuy jaar ba mën a mucc ci loolu war a góorgóorlu ginnaaw yooyu nag la jéggi siraat door am te siraat dañuy diggante timis ak gee lañ koy jéggi ak pont la boo xam ne suñu borom ci sawara la koy gàcc ñuy jéggi di dem yooyu dafa sew ni geenu fas boo ca mag ci génn buub noonu mu sawee noonu la siraat mel te moo gën a gaaw a dagg wërteel gën a rattax laalo te day battal ñu ko ñu jaan ci ngay jaar door a dem si kër ñu la lay tax a mën a jéggi mooy dëgërëb gëm yàlla te nga amee mooy tax say jéggin gaaw wala mu yeex da nga gis koo xamante ni déggante xasee fekk sa mbaru mbët muy jóg ak bi muy daanu fekk na mu jéggi gis koo xam day mel ni ak melax gis koo xam day mel ni fasu naaru góor gis koo xam day mel ni mbaam muy daw gis koo xam ne day baflu ci kaw fii gis koo xamante ni tànk bi li ciy xóoy day mel ni lampe bu bëtri ba jeex bu ne xay mu avancé bu ne kamaj mu ni fekk jàll te suñu borom nee na in minkum ila waariduha amul ci yéen ku ko dul dégg dégg ba nag mën naa gaaw ba nga xam ne am na ñoo xamante ni dangay laaj suñ borom sax ni ko ndax da ngaa bàyyi siraat fekk seen dégg waaye gaaw yëguñu waaye suñ borom nee na amul ko dul nag garaaw na garaaw boo xam ne ku ko bàyyiwul xel lu la neex mën nga cànne ndax ka am baat moom décidé na bu pare te ci dellu gannaaw looloo taxul sëñ Tuubaa waxoon borom Daarul Muxti ni ko ku ma ku amee bor bu ma joxati addiya waaw képp ku amee bor rek ma joxati addiya ndax nee na daa réglé boppam bam ni ci te penc moom kenn ko mën a tax mu taxaw ba amul te bëggut kenn ko pooj mbiram moo taxoon mun dem képp ku amee bor bu ma jox joxati addiya fay bor moo gën a farata joxe addiya nga xool fii yëf yi toll liggéey loolu nit doo ko fay tax jàpp ni gërëwul yor entreprise bu mag nit ñi weer dee nga war leen a fay nga lànk ba pare jël xaalis ba dem di joxe ak ba pare di ko publier naan nit naa seen bi nangam ban sens la lekkee fi jàmbur ba pare tëdd di yu bare bari yuy xew yoo xamante ni nit ñi teguñu ko fenn lu ci seen bakkan yooyu lépp mag na bàyyi xel bu baax ñu gis ni nag boor bi nga xamante ni ni suñ borom trié na léegi ñaari groupe la fariqun fil janna wa fariqun fi saaya ñii moom seen gannaaw dëndal kenn topp leen dara yoruñu yëfi kenn ñu nga jëm ca xéewali suñ borom yi innal la fi naay ñee ci def dañ leen di topp te mooy innal fujjaara la fi jaxi foofee la góor yàlla yi rawante foofu nga dégg sëñ Tuubaa nett nañu Usmaanu yarfau sabina alfan wa kullu xaqun naaru lim boobee war a dem sawara Seydina Usmaan dana ci tibb juróom-ñaar fukki junni ni suñ borom ñii moom rus na ci loolu lu ko suñ borom may loolu nga dégg ni féet daat ni ëllëg yoon xiyam ku mënta féete sëñ Tuubaa foofu ñu ko dara ku mënta féete kaw mais eh, defaloo ko dara te yii ma fi tudd moom moom ay caaxaan taxut nga njëg ko jàll kon dangay gis ni taxawaay yi des na takkaat laxasaay yi des na jaajuwaat bi jëm ci borom des na te foofu fii rek la ñu suñ tubaab jëme woon foofu fii la ñu suñ tubaab jëme woon sëñ bi ci jaamu yàlla la nu woo te it ci la ñu xëyee dafa melni ni ya da xaw a not ci wet go waaw ci xaw ndax suñ tubaab bu raja u jannatin bila taati bi sunnatil maaxi xuruurul yaati nee na kep ko yaakar àjjana te nangu wo jamu yàlla sa yaakar tasu yow ñun la bu jamu yàlla lépp baax na waaw te ki la naan bu jaamu yàlla lépp baax na fi mu la koy waxee boo ko noonu li nekk ci sa poos yi jox ma ko lépp baax na mu daanal da nga bëgg lu yomb dama liggéey lu lay kon lim lay dig moomu ko waaye lim moomal boppam nanguwu la koo jox sëñ bi tegaat ni tallahi laysa yanfau sax hada inda hululi ramsihi xayru huda nee na nit buñ ko jagatee ba teg ci puusu bàmmeel sëñ Tuubaa nee giñ naa ci yàlla ne dara boo ko fa jëriñ lu dul ak ñu sëñ Tuubaa mu wax dong max naa bàyyi xel waxul ma la du génne te sallaahi la wax ndax dañoo jàpp ni day waxantu rek waxantuwul de am daay taxul mu bind lim bind looloo leer loolu moo tax musta noppalu ñi mu àndal itam mosu leen may fu ñu yàq seenu nag ñi àndal mosu leen may fu ñu yàq seen mosuñoo nopp ndax suñ tuwaa nee na ñett yàlla mayu ko da koy jaay te mu neena aljana ak alquran ak barke neena ñett yi yàlla mayu ko da koy jaay te njëg gi itam nangu nga avance ko di ko day fay ba mak mu doon la ko jox ko gis nit ñi yaakar ci mom aljana la mu daj boo la ko wax nak na ndax jar na ko fekk jar ñu ko ko leen ñaare ni man arfan laaj ko lom dacc ca daara ja do ngay maase yépp dañuy lu ak nekkam ci daara yi ak lam dacc ci ciol tax mu man arfan barké itam ko gis mu am ko ndax barké day dolli ko way doon gaay nga xam ne ko am barké ak ko am xal ko am xal am na jamono boko amul won te buñ ko tegaatee tuuti nga gis mu commencé ko ñatt nit am na xalis seen kanam ñàkkaat kon lool du barké barké day dolli ko way du yow du di wàññi suñ mën sax daan wax ni barke dëgg mooy dem bàmmeel mën a nelaw dem bàmmeel mën a nelaw ndax dafay ànd ak yow di la nga bàyyi suñ njaboot mu leen di teral loolu yombut gis ni yooyu mat naa bàyyi xel bu baax di ko fàttali leen ci suñ bi ngir kenn ku ci nekk ci ñun takkat ak la nga ne góorgóorlu te lu ne ni ni fi dess nax yi ñu seytaane di nax nak moy lepp lañu ko yombal sun andon legi dama rob fu mu la ñuy wax bu ñu paree mooy kii que fii mu jëm moko gënal fi mu jëm lolu ya ngi tayal loo ñu sa gëna wala nga gis ko ne diw moom tey àjjana lay fanaan yoy yëpp manon na am naneen ñu ko waxe te du tey suñu ak suñu pas-pas gën a fedd ko waaye du tey buñ delloo ci kër yi gënoon sal waaw mooy foofa ca nga yële jëm nit ñi seen xel ci àdduna ci ñun àdduna ngi nii kër kër lépp dara jëru ko ñu bu doon ay état sa fi oto ci carte gis ci bari yëpp tey moomatu ci dara tey ñu lu dul iya, lu baax ci defoon amul ko njëriñ waaye saytaan day des rek dañu foyee yoo xamante ni dara amuloo ñu ci njariñ yooyu yëpp liñ ci jublu rek mooy bëgg bu bu muy àgg mel ne moom te moom daa alku ba pare te bu sañoon ñëpp alku la axwiyannahum ajmain la wax loolu waxoon suñu borom sa jaam ñëpp leen dawloo te mën nga ci na lépp adduna la xam nga li dajab yàlla la ba ngeen ko tàmbalee waaj a yàgg na ñi ngeen ci woote mbari waaye ñu néew la ñu ci bu ñett bokkoon tama taxaw fee kenn ku tëgg lii génn nit ñi kenn du ko xam moo day nit ñi adduna moo dee ci seen xel adduna nu gañe lu bare bari moo tax lu bari même bu duggee ci armée yi sax fi mu barab yi tabax ba mar bokk ba karo ko la ñuy siyaare waaye barab yi ñuy jaar nii jàpp nañu sax ay nit nekkuñu ci ngir fi ñu yóbbu adduna fi ñu adduna toll moo tax ci noonu nun noo ngi fi te demagul nanu xool fi Sëñ Tuubaa joxe ñu daw wuti fa lam nu doon def loo ñu fexe ba saa yu gestoo seen nit te daa waxoon sëñ Matar Pène ni ko sëñ ma bañ ji njaay ni ko na ngeen dëkk ci wax yàlla ana su ngeen ne ko ananga dana leen wax ni leen maa ngi nii ñu ne ko ni ñuy waxee yàlla ananga mu ne ko da ngeen sax ci li leen digal saa yoo saxee ci li la yàlla digal nga ne waxtu wu ne yaa ko yaa ngi ko naan ananga ananga mu ne ko kon bu boobaa nu mu waxee maa ngi nii mu ne ko bu boobaa soxla su ngeen am mu fajal leen kenn ku fi am soxla soo xam suñ borom génn na ca loxoom amut ba nga juddoo ba fii ba toll foo fi a toll suñ loxo suñ borom la ci loxo keneen ñëwut ci adduna moom ku ne na fi maa tax nangam ak nangam nee ko del tey ba xam ku ko yëg waaw am na fu yàlla jaarale li muy def na man faaw nga bàyyi nit ñu xel di leen sant ndax sabab yi jaar ci ñoom waaye lépp suñu borom dool lee góorgóorlu bu baax a baax jataay bu am solo la dool lee boole seen bopp ay nit fu ñu nekk dañuy boole seen bopp te yéenente jàmm boole bok nag mooy bokk xalaat bokk yéene bokk li ngeen am li ngeen am doole yu tolloo wut waaye ku ca ku ca sàkku si nag te nga man koo dimbali te yàlla tax nga dimbali ko ci sa kent laay kàttan waaw mooy ñuy laaj suñ borom ba leen ko séddi waaye buñ sañoon duñ laaj waaye ku laaj nga def te la nga man ku laaj nga def dem ak pour wanaa suur lu gën a wax ndimbali leen ma ju siiw te kenn dimbalewul moo tax nañu dimbalante te yàlla tax ci li ñu suñu borom dénk te rafetal ànd bi te wóolante te moytonte kenn ku nekk xam nga sa bopp waaye li suñu borom dëxañ ci sa morom nag xamoo ko moo tax koo gis fonkal li sëñ Fall daan wax rek ni suñu borom daan lu mu tawi wut a du ma des mukk ci di ko màggal ak di ko war ma ndax ki nag yàlla tëyu ko bind rek man la ma ca war ci sama àq sama diggante moom danaa ko matal foofu rek lañ wàll doon lee wormaal it barab ñu nekk muy Tuuba mbokk yi mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax yëpp de bokkut ak barab yëpp loolu coobare suñu borom yàlla mu bind bis tànn ci àjjuma weer yi tàng ci weeru koor guddi yi mu bind ko tànn ci laylatul xadar bind dëkk yi tàng màkk ak madina jaam yi mu tànn ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko ni mu def moom la soob mu def tuubaa ni mu ko def tabaaraka llazi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ginnaaw yàlla ne na maa moom maa moom lépp te mën naa lépp lu ko neex mën na ko def kooku kenn du ko wutal limite ci ni nangam mënta am wala nangam waru ko def yàlla la soob mu def dëkk ñu moo yàlla ci yërmandeem mu andil ñu suñ tubaab ndax ñun buñ ko doon wuti xamuñu fu ñuy aw kon buñ ko amee yërmande suñ borom la ak coobare rahmatul muhdat la yërmande dinañ ko jariñoo moo tax Seydou Fall daan wax ni Touba daa jege pays bi te fu ñuy tinoo kenn du fa tooñ jege pays bi politinoo eh, kenn du fa toll moo tax nu war a góorgóorlu baax baax ci sàmm orma ji kent lay ñuy sàmm jëm ni seen ji buñ ko gisoon ko jamono ni ñuy sàmm jëmbam ni ñu koy warmaale lañ warmaale dëkk même buñ ko fi seen tubaab moom bët yi ko gis waaye bëti xol a koy gis moo tax sëñ Moussa ne fa la faatu la Cheikh Bamba ci dunia bu la fàddoo nag saxal ca lam santaane sëñ bi lim santaane leer na muy diine lislaam ji wàcceel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la mu ne na ko sab xol ne jàkk nag ndem raw na say bët ñun Sëñ Tuubaa raw na suñuy bët waaye sunu xol lañ koy gis mi ngi lay gis te boowul ak seytaane noonu li ñu waroon jàpp rek mooy jataay buñ toog jàppal Sëñ Tuubaa bi bu ko defee suñ jëmm dana yaru suñu kàddu dana yaru te du nekk ak neen ba keroog na koy jóge mel ni dana toogoon ak moom te bu mu ko defee dana nu amal njëriñ moo tax ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax ndax dëkk bi da koo dugal ci aw say woo xam ne yàlla la ko dénk nafsi la wax wa diini suma ahli wal walad wa maskani juróom la mu boole ko lakka wa jaatul abad dénk naa la ko yàlla ba faw wa hakaza dunyaaya maa uxraaya adduna ak àllaaxira la te yalla ni ko denk moom nepp lim ko musa denk sang sàmm na ko ko kon nak na baye xel bu baax ba bo boo delloo ca way wa jeñ bi boppam ni ay non jële lañ ko fi yóbbu ko tuddi su du non sam mu sun borom man naam bu del ci day sox wala mu indaalib legge wala mu doon jeneen jëmm baye lam don wax waye sam mu sun borom ci matal ak sam moo tax ba léegi histoire mënu gunu indil dara jëmmam amul la leen lu ca dolli ko waat lu dul mage ko du muy ñëw at yu dolli ko loolu càmmuk suñu borom diine ji bu ca tarxiisoon ca biir ba mu ànd ñoom ba léegi aw këyit dikk na wuñu koy firndeel wala ñu di ko wax mun mënuñu ci dara kon diine ji suñu borom sàmm na ko lam doon wax bi mu nekkee fii si biir bokkam ba mu demee faw la baayaatuhu fil barri taxta sajara wal tey barru tayyibun wa xawli la ba mu delluwaatee da ngay baayaatu fil bahri tahta sajara wal wal bahru musbidun wa hawli safa nee na ay saay-saay doo nga ma wër ci géej gaa ngi duusu fële nag ñu baax a ma waroon ca kaw jaww ju jéeri ju teeja may wax li may wax ba mu delluwaatee fay ni saay-saay si nga ma wër ci géej gaa ngi duusu te la ma doon wax rek lay wax mooy jaayante ak yàlla jébbal boppam suñu borom dara cay nafsi wa diini suma ahli ñu wax ni njaboot gi ci bàyyi woon bi ñuy dem cerno Ceerno mu nekk si bopp njaboot bi boobu fa fanweeri at sëñ bi def juróom-ñetti at ci àll bi mag ñëpp yu ànd ak moom yoon wi di yokk dong ngay di mokkal alxuraan ñu jàng xam-xam di ko jàng ba bi sëñ bi jël ci yoon yi daa gën a am doole ñun ci bàyyi woon ñuy dal alxuraan sëñ sal sëñ Fall bind kaamil jàng xam-xam kon comme dénkoon ñoŋal na Moussa ab yonent la Haaruna ab yonent la Moussa bi ñu dajeeg borom ñeent fukki fan la am bàyyi nit ñi ak Haaruna bi ñu dee ci waatee daa fekk ñuy jaamu xéram ñeent fukki ak fan ñeent fukki fan kii am juróom-ñetti ak dem ci àll bi kon yàlla far na ko yàlla far na ko doom yi gis nañ ni jëri doom ñëpp baax moom suñu bàmba doon ko jëri doom ñëpp baax xam ne foo fi toog ci jataay yi ba ñëw kenn fekk la fa ñu ne kii yaa ko jur loolu su borom moo te damay ñëw wax ni yàlla de mu mel mi ngi mel ni weñ wu dugg ci bu weex weñ boo ko dugalee ci bitéel bu weex saa ko teg ko ci diggu ganaar ya dañuy tox ba seen sàll yu metti waaye mënuluñ ko dara loolu mooy jàmm suñu borom xam nga dañuy seen weñ yi ci biir bitig bi muy naaw ñu defee mën nañ ko daal mën nañ koo daal fenn bu ne du coof day bëgg a dee waaye duñu àgg ci moom loolu mooy jàmm suñu borom Cheikh Abdou Khadir ka ko doon génn ci biir këram indi ko ba ca teen boobu yi teenu bés bi boobu ci biir jumaa ji la ko génn këram ba indi ko foofu dugal na ko ci biir teen ci teen ba amul ko bépp Cheikh Abdou Khadir bii suuf naqari wutam boobu yalla yàlla gënoon sàmm moo matal lu doon sàmm nga kon dañ naan fii la ko tàmbal rek ñu ndax génn na génn moo tax dëkk bi mat a bàyyi xel fi ñu ko borom fonke ak fi ko teg ak fi dëkk bi toll ci moom yasir ba yuwaay bi tuubaay ba muy tukkee ci tukki ba day ñaan suñu borom ne ko na nga jàppandal sama dellu ci sama dëkk bi rabbi stajib wal tukammil ma nawaytu la daal tuubal lati bi ko tub naa fi ko buñ yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan nga mottali te nga matal sama yéene mu doon dëkk boo xamante ni nii ku ku mës a wax jëmale fi rek gis nga mbégteem ci kanam ku ku mës a wax jëmale fi rek gis nga mbégteem ci kanam ba bi ñu nekk njariñ sax ne buy wëlbatiw sàkke bu taxawee buñ bëggee mbégteem dañu xëccal gi wet gi jëm Touba doon xëccal wet gi jëm penku wet gi jëm Touba ngay wax moom mooñ ba lañ wi génn ndax bëgg gu mbëkk dëkk waaye su borom natt ko fi bu mënu fee dëkk juróom-ñaari at la fi dëkk 1888 1895 mu dem ca géej gi 95 ba 1927 fanweeri at ak ñett suñ Tuubaa tegu tànkam ci suuf Tuubaa comme mos a yendu baa mu fanaan fa la dëkk ko gënal waaye su borom natt ko ba ci bi ñu jógee ceen jolof jëm njaareem dañu sëñ Mbàkke Buso damay jaar Gede fanaan fa bu ma xëyee xët biir Touba sama tànk yi dëgg ci suuf sa ma bët yi nammante ko ak garab yi ma door a bi muy ñëw ci yoon wi la ko suñu borom wax ak ci lisaanul xaal ñu ko sa bët bu tegee ci garab yi Touba lu mal mayam danaa ko noonu nga xam dañ dafa xëj ci kaala gi kàddu bàlloo ji la jaare jaar ndaam kër sëñ ndaam Abdourahmane Lo fa la fanaan wax sëñ Mbàkke Buso ni ko bagage yi muñ ko yóbbu Gede mu fanaan fa bu ma xëyee ñu daje man sama borom nee na kër daam Abdourahmane lay fanaan sëñ Mbàkke Buso nee na ma xam ni waxam lay bañ mu tebbi ko waaye nit fu mu fanaan fa la ay bagaasam du fanaan man ko bagaas yi nañ ko yóbbu daal bu xëyee xët noonu dem dem jawe fukki at ak juróom mënu koo génn jëm ko fenn ñaari yoon la ko génne benn bi Ndakaaru la dem gouverneur général moo ko wax bi ci des xuru Mbàkke la fi ñëw yem na fa ba ngoon te benn bu ci ne dañ ko ñaanoon autorisation mais ka moo ko woolu muy gouverneur général gouverneur général moo ko may autorisation maam Cheikh Anta moo ñaan autorisation ba garanti ni bu takku saa ne dana def si waat tubaab ñaan na ay yoon ngir ñëw Touba nammatu xam ne nattu suñu borom te nangu na dëkk boobee bu yàlla dogalee nga dëkk fa war ngaa xam bu baax a baax na nga fay toogee ndax chance bu rëy rëy la lu liggéeyu mbay du ay pexe coobaree suñu borom. li wa madina amé chance ci dëkk biñ dëkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam bobu boobu la borom jox ñu dëkk ak suñ tuba ndax bu ne tuba ñu ndakaaru ci way naan tu ndakaaru fi ëpp sénégal gannaaw du tuba ci dëkk bo xamni ne ñun ñëpp fekk nañ ci doomi ci ko ci fekk nañ ci doomi suñ tuba yi ñu tok ñu seen baye sañ ci dëkk bu dëkk bi toll ni mu toll amu ci aduna dëkk bo xamanteni ni amul on aw yoon pétrole feeñagut jamaa feeñu fi jegewul am ndox mbay nangou fi climat bi ñoo ba pare nit ñi dalax dalax fi kenn mënta tey sa bopp fo mu ndamay toxo ji toba sëñ Bamba mi tedd ci penc ci metax way bu fi tedd doon toba bi tol ni mu tol lu mel ni mu mel ko ba ñu ko baye xel bu baaxa baax ci lepp lu mu man ci sàmm ormoy ak baye xel ci fi yeah te sun borom moo ko tànnal ay dëkkandoo nduuri wa maali waqtiira min jiiraani naajiyatan min jaalibi xusba ginnaaw sun borom moo ko tànnal ay dëkkandoo nag nga mën a wax ni yow kat ci dëkkandoo suñ tuwaay la dëkk mooy dëkk bi dëkk naa fi dëkk foo wet goo xamante ni bu daay gi doon tàkk balaa ak ci barab suñ tuwaay bi danga faagagal sama kër loolu doy na sëkk ak sant yàlla doy na sëkk sant yàlla moo tax ñu war a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne am nañ ndimbal lu pare waaye ndimbal ni nañ ko gën a jariñoo yàlla noonu suñu borom boole dimbali te boole ñu taxaw boole ñu aar bis bi yàlla nañ ko yàgg taxaw ñu taxawoon ñu di ko def yàlla noonu suñu borom defal lu kawee seen yoon yéen ko taxaw it yàlla yàlla féete fépp ba bu ëllëgee li ngeen ciy def kenn ku nekk ci yéen mën koo génne teg ko taabal ci te defaale ko ñu tëdd ndax yéene ji feeñ na te it defuñu lu gën bi defuñu lu gën bi am nañ suñu borom dimbali bu baax baax ñoo ngi jégalu bu baax a baax na kàddu yi lu ci xaw a naqari mbaa mu ñu koy jégalu bu baax a baax waaw jubluwuñ ci tiital nit jubluwuñ ci foqatal kenn waaye bëgg nañ daal bu ëllëgee buñ tewee ci kanam suñ ci waa kenn ku ci nekk am loo ko fa mën a moom da wax ne li ma bëgg sama yéene mooy bu ëllëgee